الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamualeykum mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu ci seen émission kàddu gu sell gi man pasteur Ahmed Fall seen mbokk seen doomu ndey maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam yéen ñépp yi yewoo fii ci Sénégal di sant sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist sunu muccalkat sunu ràmmkat sunu yaakaaru tey sunu yaakaaru ëllëg di leen sant di leen gërëm niñ koy faral di defee saa su nekk di ubbi téere bu sell bi ñu sunu boroom jox ngir jàng ci ngir taataan ci te mu doon yokkute ci ñun ñépp sunu boroom nag dafa wax ak ñun jaaree ko ci ay yonentam jaaree ko itam ci téere bu sell bi nga xam ne moom lañu jox muy biibal bi nga xam ne fa la waxeeg ñun fa la ñu jàngalee fa la ñu yeddee fa la ñu jubbanti fa la ñu yeewee kon ñu ubbi téere bu sell bi jàng li nga xam ne moom lañu sunu boroom wax tey jii nag dañuy jàng ci kóllëre gu njëkk ga ñu koy wax ancien testament jàng itam ci kóllëre gu bees gi ñu koy wax nouveau testament te bu ñu déggee nouveau testament du lu bees dafa fekk rek ne mooy li nga xam ne sunu boroom wax nañu ko ci jamono ba Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ganesee àdduna ba jamono taalibeem ya ba mujjug jamono wante du caageenu lu bees la loo xam ne dañ ko yokk ci téere bu bees bi ci téere bu sell bi kon mbokki auditeurs yi bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi jàng ca bataaxal bu njëkk ba ñu jagleel Pierre jàng ci saar juróom ci aaya juróom ñett sunu boroom mi ngi ñuy wax lii mi ngi naan ñu seen noon seytaane mu ngi wër ni gaynde guy rëbb ku mu jàpp nee na seen noon seytaane mi ngi wër ni gaynde guy rëbb ku mu jàpp nee na gaynde gu yéemu tey rëbb noonu la seytaane mel te mi ngi wër ku mu jàpp sunu boroom di ñu artu fii di wax naan war nañu moytu war nañu def dànk ndaxte am nañu ab noon goo xam ne mi ngi wéy di wër di rëbb koo xam ne mën na la teg loxo ngir sànk la te noon googu mooy seytaane seydina isa almasi bi yeesu kirist wax ci injiil ne seytaane dana jël ay pexeem yépp dugal ko ci xeex bi muy xeex ci mujjug jamono ndaxte xam na ne la ko dese bareetul la ko dese bareetul moo tax day jël li mu am yépp dugal ko ci xeex bi nga xam ne moom lay xeex te xeex boobu mooy lan mooy noonoo gi mu noonoog sunu boroom te bu ko naka la koy wone ak fan la koy xeexee fii ci kaw àddina te ñan lay wut mooy ñun ñi nga xam ne sunu boroom moo ñu sàkk moo tax sunu boroom di ñu artu naan ñu seen noon seytaane mi ñuy wër ni gaynde guy yéemu di rëbb ku muy jàpp day rëbb koo xam ne ni gaynde di def jàpp la yàpp la maanaam lekk la def la ba nga xam ne sa digganteeg sa borom dana yàqu ba nga féete ci booram wante saytaane sunu borom dafa wax ci moom ci téereem bu sell bi ci bible bi sunu borom daf ñu wax jàngal ñu ne saytaane dañ ko sàkkoon te sunu borom moo ko sàkk wante ba mu koy sàkk daf ko sàkk mu nekk malaakam leer mu dem ba ci biir mu am lu dugg ci moom mu soppeeku ba tey jii mu taxaw di noonoog sunu boroom ma ko sàkkoon wante ca njalbeen nga ba mu koy sàkk sàkk ko woon mu nekk lu bon li mu doon tey jii wante ay xalaatam ay pexeem ak ya nga xam ne moom la doon xëccu moo waral ba mu noonoog sunu boroom yàlla sunu boroom nag di ñu jàngal ci seytaane ci téeréem bu sell bi ndaxte boo amee noon laaj na nga xam ko boo xamee sa noon danga xam ay pexeem xam noo koy moytoo wante boo amee noon goo xam ne xamuloo ko kooku mën na la gaañ moo tax sunu boroom di ñu jàngal ci noon googu nga xam ne dana jël kémtalaayu kàttanam def ko ci xeex bi rawatina lan ci mujjug jamono gii ñu toll sunu boroom di ñu wax ci kóllëre gu njëkk ga ci ancien testament ci xaaj ba ñu jagleel yonent yàlla ézéchiel ci saar ñaar fukk ak juróom ñett ci aaya fukk ak ñaar ba fukk ak juróom ñeent sunu boroom nag dafa jël ab buur boo xam ne dafa nekkoon ci kaw suuf yilifoon dëkk buñ naan tiir mu jël ko mu doon misaal ga nga xam ne daf ñu koy jox ngir ñu xam kan mooy saytaane mu jëlaat itam beneen buur boo xam ne moo jiite woon réew moomu ñu naan babilon mu defaat ko misaal ngir jàngal ñu kan mooy saytaane wante bu ñu xoolee li ñu sunu boroom wax dañuy gis ne jégg na loo xam ne zaayir la wante baatin la dafa nekk loo xam ne jéggi na jëmm yooyu mu tegoon sunu kanam wante daf ko def ngir mu leer ci ñun ngir ñu xam seytaane mooy kan moo tax bu ñu jàngee ci kóllëre gu njëkk ga jàng ca xaaj ba ñu jagleel Ézéchiel ci saar ñaar fukk ak juróom ñett ci aayu fukk ak ñaar ba fukk ak juróom ñeent sunu boroom day wax lii ci seytaane dafa ne yaa matoon royukaay géejum xel sottib taar yaa nga woon biir àjjana toolu bi yàlla ba bés ba ñu la sàkkee fekk nañu waajal yooyu yaa doon malaakaab serub mu ne ràññ di aare ma tabb la fa kaw tund yàlla wa tund wu sell wa ngay daagu ba ñu la sàkkee nga daldi mat ci say jëf ba keroog juba di feeñ ci yow nga bàkkaar sab taara la fuuyloo sa daraja tax nga yàq sab xel sa ñaawteef yu bari ak njublan gi ngay julam ku raglu ngay doon te dootoo tekki ba faw sunu boroom wax loolu mu jëm ci seytaane kon ñu gis na ca njalbeen nga dañ ko sàkk mu ànd ak daraja mu ànd ak taar ñu am loo xam ne dañ ko ko séddoon ca liggéey ba nga xam ne moom la sunu boroom doon liggéeyloo malaaka ya sunu boroom di ñu wax ne dañ ko sàkkoon moom seytaane dugal ko ci bërëb boo xam ne bërëb bu sell la mu feesoon ak xel ak xam-xam loolu lépp nag sunu boroom defoon ko ci moom soloon ko ci moom ngir lan ngir muy jëm di ko liggéeyal na malaaka yi di liggéeyalee sunu boroom mu lay ni yónni nee na ko bés ba ñu la sàkkee fekk nañu waajal yooyu yépp mu ne ko da nga nekkoon ku ne ràññ dama la sampoon ngay aare ma teg la ci tund gu sell ga nee na ba ñu ko sàkkee fekk na ñu matal ay jëfam yépp ba keroog nang jubadi feeñ ci moom sunu borom yokk ci ne say ñaawteef yu bari ak si njublang mu yokk ci ne sab taara la fuuyloo sa daraja tax nga yàq sam xel sunu borom di ñu wax ne seytaane dañ ko mayoon lu bari dañ ko tegoon fu kawe sunu borom nag moo ko sàkk mayoon ko lu bari joxoon ko lu bari teg ci moom ci loxoom lu bari mu yore kilifteef gu rëy wante sunu borom di ñu wax ne ab taaram ak matam googu nekkoon ci moom moo tax mu fuuy ab darajaam moo yàq xelam sunu borom di ñu wax ne daraja ba nekkoon ci seytaane taar ga nekkoon ci moom tax na ba mu fuuy ba xelam yàqu te bu ñu jàngee ci kóllëre gu ñëkk ga ba xaaj ba ñu jagleel esaay jàng ca saar fukk ak ñeent ca aaya fukk ak ñaar ba fukk ak ñeent sunu borom lii la ñuy wax ci seytaane moo yow biddeewu njël bi ne woon ràññ tey nga xawee ko asamaan ba fii yow mi daan daan xeet yi tey ñu gor la xanaa yaa doon wax ci sab xel naan maay yéeg kaw asamaan maay aj sama jal kaw biddéewu yàlla ya maay toogi kaw tund ndaje ma maay yéeg fa kaw fa kawe ba mel ne yàlla aji kawe ja sunu borom di wax ne loolu moo yàq xelu seytaane ba mu tàmbali di wax naan mankat danaa mel ne kama sàkk daraja ba mu am danaa ko am nee na danaa yéeg ca tund yu kawe-kawe ya maanaam danaa fekki kama sàkk fa mu nekk ma mel ne moom nee na moom moo doon wax ci xelam naan danaa mel ne yàlla aji kawe ji sunu boroom na ko nan tey nga xawweeku asamaan tey ma daaneel la yow mi nga xam ne sa xel sa xalaat bu bon yàq na sa xel yow ma nga xam ne danga taaru woon yow ma nga xam ne bañ la sàkkee fekk na ñu pareel la la nga waroon jëf yépp wante sa taaru ak daraja ba nga amoon yàq na sa xel ba nga ne danaa mel na kama sàkk kon ñu jàng ci ñaar ba ca ñëkk mooy noon gi ñu am ca njalbeen ga doonul woon ab noon saytaane ca njalbeen ga ba ko sunu boroom sàkke daf ko sàkk boole ko ca malaaka ya gënoon taaru boole ko ca malaaka ya ëppoon daraja boole ko ca ña nga xam ne la mu tegoon seen loxo muy mission buñ ko waroon doxal bokk na ca mission yi gënoon a kawe wante sunu boroom di ñu wax ñaar ne ñu kat ab taaram moo ko fuuyloo mu nekk ci xaaj ba ñu jagleel Ézéchiel ci saar ñaar fukk ak juróom ñett ci aaya fukk ak juróom ñaar mu ne ko sab taara la fuuyloo sa daraja tax nga yàq sab xel bu ñu ñëwee ci Esaay ci saar fukk ak ñeent aaya fukk ak ñaar ba fukk ak ñeent sunu boroom naan ko tey nan nga xaweeku tey ma daaneel la nga xam ne maa la féete kaw maa la sàkk kon mbokk yi loolu am nañ luñ fa mën a jàng mu jëm ci sunu boroom ak ñi nga xam ne moo leen sàkk lan moo war a dox seen diggante sunu boroom ak ña nga xam ne ay mbindeefam lañu sàkk na leen wante am na daraja bu mu leen joxaale am na tur gu mu leen joxaale am na taar gu mu def ci ñoom am na may gu mu def ci ñoom wante ñuy fàttaliku ne la mu defoon ci seytaane daf ko defoon ngir mu doxal ko ab mission am te sunu borom ngi wéy di wàccee ay nit ci kaw suuf di leen may daraja ngir ñu doxal ko missionam wante la ñuy jàng ca saytaane mooy ba mu xoolee boppam tàmbali di bokkaale te bokkaale googu moo ko sànk kon ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu gis ne kat kooku nga xam ne mooy saytaane sunu boroom sàkk ko tegoon ci loxoom yu bari mayoon ko tur mayoon ko daraja mayoon ko taar mayoon ko kattan ngir mu doxal ko ay mission mu dem ba ci biir mu ne man itam danaa teg sama jal ca tund ya gën a kawe danaa mel ne aji kawe ji sunu boroom ne ko danaa la xaweeku loo nga jóge ci kaw asamaan daanu ci suuf ma won la doo dara ma lay niy fàttali ne am na ñoo xam ne ci biir jaam yi sunu boroom da leeni may daraja da leeni may lu bari wante bu ñu réeree ne loolu sunu boroom teg ci seen loxo daf ko def ngir ñu doxal ko ab mission fii ci kaw suuf bu boobaa li daloon seytaane dana leen dal bu ñu demee ba nga xam ne xamatuñu lañ leen cëral fa mu yem ak ka leen ko cëral mooy kan bu boobaa loraange alkande dana wàcc ci seen kaw ndaxte am na loo xam ne sunu boroom moo ko moom am na loo xam ne itam may na ko ay jaamam wante la mu may ay jaamam lu mu rëy rëy rëy lu mu foor lu mu yéeme sunu boroom day wéy di doon sunu boroom maanaam sunu kilifa ki ñu sàkk ki nga xam ne moom moo ñu sàkk te amul dara loo xam ne mën na dem ba mel ne moom sunu boroom di ñu jox ay firnde bu ñu jàngee ci mucc ga ñu koy wax exode ci tubaab jàng ci saar fanweer ak ñett jàng ci aayu fukk ak juróom ñaar ba ñaar fukk sunu boroom dañuy indil loo xam ne dafa doxoon diggante Musa ak moom Musa ñëw bés ne ko kat dama la bëgg a gis aji sax ji sunu boroom ne ko Musa mënuloo ma gis mu ko koy wax ci aaya fukk ak juróom ñaar mu ne ko aji sax ji ne ko loolu nga wax mënuma la ko defal ndaxte nit mënuma gis dund mu jàngal foofu Musaa ne ko may naa la lu bari yëkkati naa la te balaa loolu sax am dafa am lu xew ba ku ko Musaa ñaanee mu ne ko may naa la ko ko Musaa ñaanaat ko mu ne ko may naa la ko sunu boroom daan feeñu Musaa daan wax ak moom wàccee leeram ci kaw Musaa ba nga xam ne benn jëmm mënul taxaw ak Musaa teg ay gëtëm ndax leer gi nekkoon ci Musaa wante ba ko Musaa ne ko dama la bëgg a gis mu ne ko déedéet mënuloo ma gis Musaa fii nga yem man nag aw ma fu ma yem wante yow mi ma sàkk am na fu ma la yem loo am na loo xam ne mën nga ko xam ci man am na loo xam ne mën nga ko gis ci man wante am na loo xam ne itam yow mi ma sàkk mënuloo ko am mënuloo ko gis ndaxte man maa féete lépp kaw mu ne ko Musa nit du ma gis dund sunu borom bi ñu indil beneen lu xew mu nekk ci kóllëre gu bees gi nekk ci xaaj ba ñu tuddee jëf acte des apôtres nekk ci saar fukk aaya benn ba ñaar fukk ak juróom ñaar sunu boroom yónni malaaka mu ñëw feeñu benn waay ju baax bu doon Corneille ragaloon sunu boroom nekkoon boroom yiw ak yërmande daan laabire nit ñépp nekkoon nag boroom daraja ndaxte soldaar la woon ci armée waa Rome sunu borom yónni ab malaaka mu ñëw feeñu ko wax ak moom ne ko kat say ñaan ak say jëf yu baax yéeg na fa kaw asamaan ba yegg ci man mi la sàkk man nag dama lay wax nga yónni ay nit ci bërëb sàngam fekk fa nit ku ñaan pierre bu ñëwee ci yow dana am lu mu la wax maa ko yabal déglul la mu la wax te nga jëfee ko ñuy wax ne boobu corneille dafa yónni ay nit ñu yegg si ca pierre wax ak moom pierre na leen li ngeen wax ka dëgg la ndaxte man itam sama borom feeñu na ma yónni na malaaka ci man wax ak man ne kat yéen da ngeen ñëw jël si ma naa ànd ak yéen ba ñu yeggee ci kër ga sunu borom mi ngi ñuy wax naan ba pierre duggee corneille dafa daa di jóg daje ak moom daanu ci tànkam sargal ko dafa jóg daje ak pierre daanu ci kanam sargal ko ndaxte corneille mi ngi jàpp ni nit ki nga xam ne sunu borom moo yónni malaaka waxan moom ne ko demal nga jëli nit ki waxan moom déglu li mu lay wax damu jàpp ne kii kat amul ku mel ne moom am na lu nekk ci moom lu rëy ndaxte bu loolu amul woon kon sunu borom duma feeñu yónni ab malaaka waxan man ne ma demal nga ne jëmm ji kat mu ñëw te nga déglu te jëfee li mu lay wax kon Corneille jàpp ne Pierre mi amul ku mel ne moom sunu borom di ñu wax ne dafa dajeeg Pierre daanu ci tànkam sargal ko wante dafa am lu am solo lu ko Pierre tontu la mu ko wax mooy jógal man de nit rek laa ne yow nit rek laa ne yow ba ko Corneille sargale daf ko jàngal ne ko la nekk ci yow moo nekk ci man ki la sàkk moo ma sàkk xanaa kay daf ma baaxee ab mission boo xam ne dama koy dox wante jàppal ne xamal ne ki la sàkk moo ma sàkk te moom képp lañu war a màggal jëlul mbir mi féete la ko boppam dafa delloo njukkal dafa sant sunu borom ne Corneille man de ab dit laa rek ne yow mu jàngal ko ne sunu borom rek lañu war a màggal sunu borom rek lañu war a sant sunu borom rek lañu war a delloo njukkal ba sunu borom feeñoo yowaana woon ko li nga xam ne mooy xew ci mujjug jamono daf ko booleeg ab malaaka malaaka ba ne yowaana lii la ma sunu boroom ki ma sàkk yónni ngir ma wan la ko ma wax la ko te mu jëm ci mujjub jamono lu yegg seegul dama lay won lépp li nga xam ne dana xew ci àddina mu won ko askan yi nga xam ne danañ jóg ci àddina am fi doole ak lañ fiy def mu won ko buur yi nga xam ne danañ taxaw ci kaw àddina am fi doole ak li ñuy def mu won ko la nga xam ne dana xew lépp ci mujjub jamono ba ku tedd ki di dellu siwaat muy yeesu christ mu won ko yu yéeme yu yéeme wante sunu boroom mi ngi ñuy wax ne ci peeyu ñu koy wax apocalypse ci saar fukk ak juróom ñeent aaya fukk ba malaaka ba waxee jean yowaana ba won ko la mu koy won yépp dafa yéemu nee na noonu ma daanu ci ay tànkam bëgg koo jaamu yowaana nee na mu daanu ci tànku malaaka ba bëgg koo jaamu malaaka ba ne ko mu ne ma moytu koo def sa nawle laa ci liggéey bi jaamul yàlla sa nawle laa ci liggéey bi ndaxte yàlla daf la jox ab mission boo war a dox yow yowaana nga yëgal nit ñi la nga xam ne day xew mujjub jamono artu leen ci turu sa boroom man mii di malaaka ba nga xam ne nag man lañu yónni ma won la yooyu yépp jàngal la loolu lépp xamal ne sab nawle laa kon bul ma jaamu bul ma jaamu jaamul sa boroom mi la sàkk sàkk ma la nga xam ne mooy dëgg moo nekk mu ne ko man malaaka mii won la lii lépp kat dañ ma yónni wax ma won ma yabal ma dañ ma sàkk nañ la sàkkee kañu sàkk nag képp moo jara jaamu moo jara sargal bu ñu jàngee itam ci peeñu apocalypse saar ñaar fukk ak ñaar ayu juróom-ñett ba juróom-ñeent yowaana mi ngi dellu siwaat ci wax boobu digganteem ak malaaka ba nee na ba mu déggee te gis mbir yooyu dama daanu ca tànku malaaka ma bëgg koo jaamu waaye mu ne ma moytu koo def sa nawle laa ci liggéey bi yow ak say mbokki yonent noonu la ko malaaka bi waxee mu ne ko déedéet bul daanu samay tànk di ma jaamu moytul def lu mel noonu ndaxte man sa nawle laa ci liggéey bi yow ak say mbokk yeneen te ya nga xam ne sunu borom yónni na leen ñu jiitu ñun ñépp ay nawle lañu ci liggéey bi dañ ñu sas di ñu liggéeyloo dañ ñu sàkk te ka ñu sàkk nga war a jaamu ñu gis foofu ne sunu borom mi ni ñuy jàngal loo xam ne moo sànk seytaane moo sànk seytaane moo tax yu mel noonu dañ koy gis ci biir àddina bu nit demee ba nga xam ne la ko sunu boroom may la mu teg ci loxoom ne ko kat lii dama la ko jagleel ngir mission bi nga war a dox fii ci kaw suuf nga jël loolu lépp féete la ko sa bopp bu boobaa dañ lay fàttali rek la nga xam ne moom la sunu boroom waxoon seytaane mu ne ko sa taar ak sa daraja ñoo la fuyloo te yàq sam xel wante da nga xaw weeku daanu ci suuf bokkaale moo sànk seytaane mu xool la nga xam ne sunu boroom moo ko moom moo ko yelloo moom képp mu ne man itam danaa ko am danaa yëkkati sama tur ba mu féete ca kaw waxul ne danaa yëkkati turu kama sàkk wante mu ne danaa yëkkati sama tur danaa yéegal sama bopp ca jal tund ya gën a kawe danaa am daraja ga nga xam ne moom la aji sax ji am sunu boroom ne ko man maa la sàkk man maa teg yii yépp ci sa loxo ngir nga doxal ma ab mission danga xawweeku nan ba ku la gis yéemu te am na foo xam ne sunu borom mi ngi koy wax naan ko ci Esayi danaa la def ab pënd sunu borom lan di ñuy wax ci kóllëre gu bees gi ca bataaxal ba ñu jagleel waa kolos ca saar ñett ca aayu juróom ba juróom benn nee na nan li nekk ci yéen te bokk ci mbirum àddina maanaam bokkaale yooyu mooy xëcc merum yàlla ci seen kaw yàlla di ñu artu nee na yooyu nekk ci sunu biir nga xam ne dafa bokk ci bokkaale jël la nga xam ne sunu boroom moo ko yelloo nga féeteel ko sa bopp wala nga féeteel ko nit sunu borom di ñu wax ne loolu mooy xëcc meram ci sunu kaw te loolu moo xëcc meram ci kaw seytaane ba mu ne ko danaa la xaweekloo te mujjug jamono danaa la def pënd ndaxte maa la sàkk kon am na la nga xam ne sunu borom képp moo ko yelloo am na la nga xam ne nag teg na ko ci loxo ay jaamam ya mu tànn wante loolu taxul ñu dem ba nga xam ne dañ koy diir mbagg am na lu sunu borom yelloo moom képp nañ ko ko delloo kon mbokk yi ñu leen di sant di leen gërëm di leen fàttali nag sunu numéro de téléphone di 77 0 74 35 35 man pasteur Ahmed Fall ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di ñaan yiw ak yërmande sunu borom wàcc ci seen kaw ci darajey Seydina Isa almasi bi Yesu Christ amin
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
üm